benn waxtu toftal ñetti simili ci télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru ba bëccëg bi dina bokk ci li ñuy waxtaane tey mbirum Barthélémy Dias jamono ji ñu koy àtte foofee ca tribunal bu ndakaaru li nga xamante ne rek moom lay avocat sàkk woon rek ñu daxandi àtte bi ba beneen yoon loole nag euh, juge tribunal bi nangu ko ndax ñoom dañu soxla woon rek euh, ab diir bu leen di may ñu gën a saytu lépp lu aju ci dossier bi ci jamono jooju nag lépp lu ci wàllu aju ci wàllu pétrole ak gaz fii ci seen réew suñu réew waa société civile moom ñu ngi sàkku rek ci kilifa yi ñu leeral mbir mi bu ko defee rek tey coow li ci judd bañ am ci lool sax ñu ngi sàkku ci ña nga xam ne rek ñoo yëngu ci lépp lu aju ci wàllu pétrole ak gaz ñu toog waxtaan bu ko defee lépp dina leer jamono jooju nag waa SDE. ñoom biir na leen ne ñoom ñooy continuer rek di jox askan wi ndox loole nag gannaaw ab tukki nemeeku bu ñu amaloon fële ca Tiwaaroon ngir waajal gàmm bii di ñëw loolu nag ñu gis ne rek ñoom li ñu liggéey jot na fi rafet ba tax na rek war nañu mën a wéyal liggéey bi foofee ca sous-préfecture bu Ndakaaru nag boo fa demee table yaa nga fees dell ak carte électeur di ko waral seen ñi ko xam ne rek ñoo ko moom ñoo fa ñëwul jël si ko ba tax na rek kilifa yi kenn ku nekk nga doxantu fa jël sa carte bu ko defee rek bu bési élection jubu see yow nga mën a dugg ci mbañ gàcce rek woteel ki nga xamante ne moom moo la doy mbokk yi loolay ponk yi rek boo taaxee loo tuuti ñu faram fàcce asalaamaaleykum mbokk yi dal leen jàmm ci xibaaru benn waxtu yi ñu doore ko dem ba ca diwaanu Ndiassane foofe nag ki nga xam ne mooy xalif bu yees bi di sëriñ Bekkaay Kunta diwoo askan wi ñu doon benn bàyyi xiro bi te ñaanal kilifa yi nga xam ne ñoom lañu ñu teg ci bopp réew mi bu ko defee rek jàmm mën a sax dàkk suñu réew ñu moytandiku benn jafe-jafe Cheikh Anta doxantu woon fa àndi ci ak say laatir. kon mu ngi boppam di ñaax askan wi ñu bàyyi xel ci tànku mag ñi. ak jikkoy mag ñi fa ñu jaaroon ba taxawal diine ba teraanga teraanga ju réy ji tey nekk ci senegal Sénégal mu indi fi dal ak jàmm ak bokkoo ak yërmande ak ñeewante ak dimbalante loolu tey bu amee ñi nga xam ne ñoo fi magi diine yi te seq senegal moo xam ci xaadir la moo xam ci tijaan la moo xam ci murit la moo xam ci tariqa bu mu mën doon mag ñooñu ko ngànkoon démb doxaloon ko ci ni nga xam ni noonu la ko yonent bi rëddee woon loolee moo indi barke bi tey bu ñu bëggee nag barke boobu sax sëriñ bi nee na moom de mi ngi woo boppam di woo bokk jullit yi ak njabootam ñu delluwaat fa mag bàyyi woon ñu téye ko teg ci seen tànk ngir jàmm jooju gën a law sécurité bi gën a mat dal googu itam gën a yaatu muy nuyu itam nag bokki xalif généraux yépp nag di leen jaale nag magam ju baax jooju alxaaji maam bu Mouhamed Kunta mi ngi koy jaale képp koo xam ne tey njiital diine la te nekk ci réew mi moo xam ku yoru kàddug lislaam nga mbaa ku yor sax kàddug euh, chrétianisme ñépp daal ci jàngu bi ak diine ji sëriñ bi mu ngi lay jaal magam jooju ginnaaw bi nga xamee ni itam jaal na ko président Macky Sall bi mu fi ñëwee léegi te gisee moom fii ci néeg bi. kookee di Serigne Abdourahmane Kunta di porte parole xalif bi nag àddu ci li nga xamante ne mooy mbiru Serigne Bachir Kunta mu ne nag dafa gis ci information yu bëri ñuy xamle ne dañ ko destitué maanaam dañ ko dàq loolu nag dara jàpp ci xëy na keneen la ñuy jox liggéey bi rek. wante dina xëy euh, doon di bokk ci li nga xamante ne rek ñoo gën a jege ci xalif bi fi toog ñu wax ci leneen mbiru Barthélemy Dias jamono ji nag ñu ngi koy àtte foofee ca tribunal bu Ndakaaru loole nag li nga xam ne moo nekkoon seen mëbët maanaam daxandi procès bi beneen yoon loole jotul antu ndaxte ñoom dañu bëggoon rek ñu may leen ab diir su ko defee rek avocat yees yi nga xam ne dugg nañ ci dossier bi mën ko saytu bu baax a baax bu fekkente ne Dissa Preira mu ngi en ligne ñu dem fekki ko foofe ca tribunal bu Ndakaaru Dissa Preira gannaaw bu ñu la nuyoo ana lan la mën a jàpp ci li xew foofe ca tribunal bu Ndakaaru. jërëjëf Ibou tribunal bi fees na dell li mën a jàpp nag fi mooy procureur bi moo nekkoon euh, di wax di jël parole. Euh, ginnaaw bi nga xam ne avocat défense bi jël nañu paral ba pare euh, euh, ci procureur bi nag moom li mu wax moom jàpp na ne que Barthélémy Diaz di tax mu comparé moom kese parce que affaire bi affaire pénale la donc moom la concerné tax moom moom moom moo tenir propos yi nga xam ne moom moo tax ñu jàpp ko léegi nag ba tey procureur bi moom li bëgg mooy juge bi mooy magistrat yi confirmer li nga xam ne mooy décision bi nga xam ne moom lañu jëloon en première instance maanaam euh, condamnation parce que jàpp na ne que loolu moom mooy décision justice bi nga xam ne moom moom moo correct waaye comme ni mu la koy waxee laata loolu ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, défense bi jël nañu kàddu euh, ñu ko mel ni ku ci mel ni maître El Hadj Diouf ak maître Amadou Ali Kane bokk nañu ci nga xam ne ñooñu ñooy avocat défense bi ñoom li ñu jàpp na mooy que seen client dara lu dul critiquer benn décision bu justice boo xam ne moom ànd na ci te lu ni mal bés bu nekk ñu nemmeeku ko ci si réew mi waaye nag ñoom jàpp nañ ne li tax nag juge bi euh, teg ko daf fekk ni que euh, kooku euh, homme politique la te dañu dañu jàpp ne homme politique nag dafa wax en public donc li mu wax en public te tax mu ñu taxal li nga xam ne mooy justice bi ci fàttali Ibou ci gàttal moom mu toppee bokk na ci Euh, propos yu nga xam ne dafay discréditer maanaam euh, li ñuy wax euh, décision de justice nekkatul li ñuy wax propos yi nga xam ne dafay discréditer justice boppam waaye propos yi dafay discréditer li ñuy wax mooy décision bi nga xam ne moom la justice jël donc avocat yi ñoom dañuy jàpp ne mooy que dossier bi mooy mooy ba article bi wax pour ñu condamner ki nga xam ne mooy Barthélémy dial nañ euh, euh, défense bi na parole di xaar euh, ndax procureur bi encore na jëlaat parole um déet de lu ci mën na am rek dellu siwaat ak ak yéen Ibou Diouf incha allah ñu bàyyi la nga wéyee liggéey bi foofee ca tribunal bu Ndakaaru ñu wax ci leneen mbiru ndox mi jamono ñu weesu nag ñu doon xamle ne ñii di waa Suez ñooy wéyal di nga xam ne moo nekkoon liggéeyu SDE ki seen kamante na rek mooy seen directeur général di Abdou baal gannaaw ba mu demee foofee ca Tiwaawoon di nemmeeku rek travaux yi nga xam ne ñu koy amal ngir waajal gàmmu gi nee na biir na kanem mooy daa SD ñooy wéyal rek di jox askan wi ndox donte sax nguuru Sénégal tan nañu leneen ndax liñ fi jot a liggéey fësal na seen taxawaay bu mucc ayib ngir taxaw askanu Sénégal ñu teewlu ko ci micro Cheikh Anta Diop wax gàmmu ci waawoon wax ndox sëriñ Mansour si yàlla na yokk leeram daan na wax ni gàmmu ci waawoon il lamp yi leer revenu am ndox cëriñ yi bëri robinet yi am ndox mooy yooyu suñu suñu responsabilité ñun SDE ànd ci ak ministère hydraulique ànd ci ak waa SONES li ñu daan def mooy fexe ba ndox bi bañ a manqué surtout ci production bi def ay point do yu bëri ci ci ci ci këru dal yi ak mbedd yi robinet mbedd def ay robinet def euh, extension euh, poser ay canalisation ensuite defar branchement sociaux ñu gis yë ren nag SDE dafa yokk li ñu li mu doon def parce que dañuy ànd dañuy def li ñuy wooyee responsabilité sociétale d' entreprise indi fi ay camions citernes yu bëri plus de soixante dix euh, entretenir kër marabu yi def ci ay surpresseurs ànd ak ñoom fexe ba kenn bañ a manqué ndox contrat SDE dafay jeex te nguur gi c' est normal mu ne dafay lancer appel d' offre yéen ñëpp ko suivre euh, am na benn résultat provisoire bi ñu joxee jeexagul ñun SDE dañu jàpp ni que ñun ñoo war a appel d' offre condition appel d'offres dañ ko respecté depuis 22 ans SDE def na liggéey bu rëy liggéey bu am solo ànd si ak yéen ànd si ak SONES ànd si ak ministère de l'hydraulique te si li ñu jàpp dañ continuer di ko def appel d'offre bi su paree dañ continuer di liggéey ak gouvernement di liggéey ak SONES di liggéey ak yéen population bi yéen ñëpp seedee liggéeyu SDE bu jógee ci mbiru ndox wax ni ñuy saytu lépp lu aju ci wàllu pétrole gaz fii ci Sénégal waa forum civil nag na ñoom bu ñu bëggee wàññi coow bi nga xam ne moo ci lalu rek fowu ñu fësal bépp xibaar bu ci bàyyi ko lool rek bi ko defee ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ci liggéey ñu toog ci benn table waxtaan bu ko defee rek. coow li ci nemmeeku dina faral di wàññeeku ñu teewlu ci loole Chérif Salif si xam-xam bu màcc ci wàllu jëm ci wàllu koom ak eh, kii di Alioune Tine ñu teewlu leen ci micro Aïssatou Gueye ba amul réew boo xam ne da fi rek nga am ay ressources te amuloo problème da ngay xool problème bi nga xam ni mooy problème mu Congo ci bi nga xamee ne Lumumba ñëw na ba ñu jël ko faat ko niñ ko faate ura uranium bi la waaw uranium bi te uranium bi jëriñul woon sax Congo lay tey Congo li fa am ci alal kenn xamul nu mu toll waaye fitna bi am kong kenn mënul wax nu mu toll lu tax ndax ressources yi nga xam ne moo fa am te ko bëgg bari waaw donc loolu sax moo tax ñu war a wax li nga xam ne mooy problème mu malédiction problème mu malédiction war nañ ko wax bu baax problème mu pétrole ak gaz bi ñuy wax ne dangeen ngeen ñuy tànqal déedéet tànqaluñu il faut que ñun ñi di ko wax ñëpp di ko wax ba nga xam ne dañuy toog lépp loo xam ne mën na ko jur ci musiba ñu fexe ba mu fànq du ma toog rek dogal ni sama xalaat ak ni ma gisee moo gën a jag yëpp nañ ko doxal mais daal li ëpp solo mooy base bi réew mun na am ay parti politique mais dafa am lu ñuy wax plateforme minimale boo xamante ni ci ngeen di d'accord benn cëslaay boo xamante ni yéen a ko bokk loolu moo di euh, bañ a mettre ce peuple devant le fait lu muy xam ci réew mi wala luy jox ci réew mi daf koy jëkk dégg bitim réew ñu doog ko ko wax te buñ ko ko waxee aussi amul moyen ndax dimbalewuñ ko mu organiser wu pour xam li yëngu lu ko yëngal. njiitu réew mi moom démb ci forum bi nga xamante ne rek ñu ngi ko doon jagle lépp lu aju ci géologie ak mine loole nag mu yëkk ci yoon ci ay kàddu di sàkku ci compagnie yi liggéey ci wàllu or fii ci réew mi bu ñu gisee or rek ñu segg ko taaral ko laata ñuy xool niñ koy jëfandikoo. mu gis ne loolee dina may compagnie yooye ñu gën a mën a saytu bu baax a baax or bi ñuy gis fii ci Sénégal Alassane ba teewoon fa andi ci ak Papa Sangone Mbaye tantôt à madame le ministre. il faut ñuy oser nag découvrir li nga xamante ni dafa weesu suñuy frontière njiit réew mi Macky Sall sas li ni mel ministre am mi yor wàllu miin ak géologie Macky Sall li bëgg nag mooy or bi ñu koy raffiné fii ci Sénégal boo xoolee ca Suisse la yóbbu li ci ëpp ci xayma téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi juróom. il faut réfléchir ensemble et là j'interpelle les rek ñu xalaat ci an yan pexe la ñu war a mën a def ci li ñeel wàllum euh, coppi or bi fii nii te loolu maa ngi ciy woo compagnie yi ngir ñu mën cee gën a mën a taxaw ndax tamit boo seetee condition yëpp dajale nañu ko ci diwaanu Afrique sowu jant mën nañ jouer boobu les role bijoutier yi ku ci nekk mën ci amit sa wàll waaye ak yeneen yoo xamante nit ñoom bëgg nañoo ñëw fii ci biir Sénégal te soxla lii di ooru Sénégal ñu gën ko mën a am te loolu tamit euh, dinañ xool li ñeel wàllum fiscalité yi tamit. afin de rendre cela salon international des mines bi nekk ab plateforme bi nga xamante ni dana tax. ñu am ay échange wante itam ay xalaat yi ñu tënk mu jëm ci wàllum secteur miin ak géologie mu di occasion itam pour président Macky Sall wanewaat bëgg-bëggam leeral lépp li nga xamante ni dafa jëm ci yorelinu suñuy ressources naturelles mu jëm ci wàllum publication contrat yi ak yeneen données. La publication régulière de ces données devrait permettre. publication yi ñuy amal saa su ne ci contrat yeeg données yi ni mel dana tax ba citoyen xam dëgg-dëgg lan moo ci nekk mu jombal itam seen euh, compréhension jëm ci wàllum secteur extractif. au développement économique et social du ay exposants yu bëri nag teew ci ndaje mi géologie ak mine facteur de progrès social ak xëyub ndaw ñi ngir émergence mu di tam juróomeelu édition bi ab innovation itam am ci ndaje mi dajale ay start ay ndongo ingénieur ak ay étudiants ci xalaat bi ni mine ak géologie ci Europe digitale pour njiit réew mi Macky Sall sax Sénégal ci jamono ji war na disposé lii di cadastre minier numérique alxasan baa ñu wax ci leneen benn milliard ci suñu xaalis lañ teg ci table bi ngir xeex lépp lu aju ci fitna te ñu ciy tudd xale yi loole nag ay gëstukat dinañ leen ci boole ñoom li ñu bëgg xam ah, lan mu waral xale yi faral di ci buggal seen loxo loolu nag waa UAG euh, ànd ci ak yi ñoo financé programme bi li ñu bëgg xam rek mooy xool taxawaay biñ ci mën a am ngir loolu jóge fi ci loolu di teewlu Ramathiune ànd ci ak docteur Oumar Cissé ci microchère cër bi ëpp famille ñoo ko ci laaj mu ne ndax niñ ma yare wala niñ ma jàppale ci kër ga niñ ma jàngalee lii wàllu famille kon xeetu xeetu jàppale buñ ci mënti def jaarale ko ci famille yi dina am solo. suñu mooy joxe euh, appuyer euh, jàppale chercheurs yi ñu dem euh, gëstu mën a déterminer facteurs yooyu. programme gëstu boobu ñu ci dugalagum euh, euh, jege na 5 millions de dollars canadiens te am nañu yaakaar ne 5 milliards 5 millions de dollars canadiens yooyu ni ñu koy utiliser mën na vraiment euh, indi ay solutions yu bari yoo xamante ni pour ñun jaroon na ko investissement boobu jar dina jar na ko. bu ñu wax ci pôle urbain liggéey bi door na am na sax lu jàppandi foofu ca diwaanu Diamniadio ñoom nag li ñu bëgg. mooy wéye liggéey bi foofee ca Lacrosse nee nañ sax ci fan yee di ñëw dinañ tàmbali rek li nga xamante ne mooy liggéey bi ki xam le ni ni mel di Seydou Sall gannaaw ab randonnée pédestre bu ñu amaloon rek ngir wax askan wi ana lan mooy solos lii di pôle urbain ñu teewlu ko ci micro Ousseynou Thiam. beneen pôle Lacrosse bi mu ngi nekk ci commune Tivaouane Peulh Niaga ak commune Bambilor euh, le maire de la commune de Bambilor aussi envoyé na fi ndaw euh, di la wax ne di leen wax ne nag lii pour sport la mais pour aussi wone li nga xam ne président Macky Sall def na ko fii ci pôle bi ci diiru ñeenti at yi euh, li ci ëpp nit ñi dañ koy gis ci tele bi mais dañoo buggoon ñoom ñu gisal seen bopp ñi nga xam ne ñoom ñoo wër pôle bi commune yi nga xam ne mooy wër ñoo wër bi di commune yu Diamniadio di commune yu Bargny di commune Sendou di commune yu di commune yu di commune yu Bambilor mais ñi nga xam ne ñoom ñoo wër pôle urbain de de Diamniadio ñu dem ba ca diwaanu Sédhiou dëkk bi di Manécounda nag lu ëpp ci seen ay salle de classe daanaka ay mbaar la woon loolu nag mënees nañu wax léegi mu jóge fi ñi amal xibaar bi li ci mel mooy waa association Manécounda te ñuy dund foofee ca France rawatina ci diwaanu Bordeaux ñoo ñëw ca dëkk bi rek tabaxal leen eh, juróom-ñetti classe ak bureau pour ki nga xamante ne mooy directeur bi ak bibliothèque buy may xale yi ñu gëstu bu baax a baax loole nag ñu fas yéene ko wéyal ci fan yi di ñëw Bakary Konte teewoon fa indi ci ak Khalidiane classe yi nekkoon fii ci village bu Manékounda ay sakket la woon maanaam ay abri provisoire Manékounda bokk ci commune bu Jiree ji ay doomam yoo xamante ne ñoom France lañ nekk ñoo tabax juróom ñett salle de classe benn bibliothèque ak benn bureau pour directeur bi dañu kontaan loolu ci réalisation yi le ndaxte population yi ñoo si jàpp ndaxte seen initiative la loolu moo tax ñu am résultat bi le lu ñu ñaan population bi mooy ñu entretenir batiment yi ndaxte lu innovant la lu confortable la jóge nañu ci abri provisoire yi ñëw ci batiment yi loolu lu rafet la. Euh, c'est magnifique pour eux. inspecteur d'académie bu Sédhiou di ne tabax yu bees yi dee tax ba enseignement yi gën a baax. ci programme sectoriel éducation euh, dañu dañuy bàyyi xel li ñuy wax équité maanaam fexe ba méngale anam yi nga xamante ne ndongo yi foofu la ñuy jàngee fii ci Casamance ak feneen fu dul Casamance euh, maanaam Dakar ak feneen. te gis nañ ne euh, pour yemale bu ci yemale boobu noonu euh, ay la il faut ñu dàkkal euh, abri provisoire parce que ñii di jàngee ci ay ay mbaar ñii di jàngee ci ay classe loolu dafa xaw a yéeme ba tax na ñu ngi ministre bi ak éducation nationale dañ farataal genre pexe yi nga xamante ne nit ñi ñu ngi koy fexe pour pour pour comme mbaar du fi amati. Mamadou Lamine Diawara maire de Djiré di rafetlu initiative bi la. tey dañoo ñëwoon vraiment ànd ak suñu partenaires yi nga xam ne maa nekk euh, association maa nekkounda Bordeaux nga xam ne depuis ay at ñu ngi yëngatu ci wàllu développement surtout wàllu éducation tey mu ngi nii jox dañ financé euh, benn école xale yi vraiment mu nekk euh, lu rëy si ñun lu rëy si ñun ndaxte état mu ngi def ay jéego xëy na waaye bu ñu amee ay coopérative ay wàllu coopération ñu am ay association ay kuréel yu mel ni maa nekkounda association maa nekkounda France secteur pour nag village bu Manékounda mun a développer. wax ci wàllu politique waa front de résistance nationale ñoom li ñu bëgg rek mooy ñu jox leen fichier électoral bi ndax ñu mën a wéyal seen liggéey ni mu waree nee na nag dinañ ci wax ak ki nga xam ne mooy ministère de l'intérieur loolu nag bu amul fan yi di ñëw dàquñu sax ba amal ci ab doxub ñaxtu Motaar Souran moo yoroon seen kàddu tey ci micro bi fay. lu jëm ci wàllu fichier bi xam nga lu yéeme daf ci am. ndax ministre de dañu wax ni parrainage dañ koy def ci fichier bi maanaam ñi nga ci ku nekk ci fichier bi moo mun a pare parrainer mais naka ngay ne nit koo xam ni yow yaa ngi koy mi ngi lay parrainer te mënul mënoo disposer ci fichier bi. daañu bind ministère de l'intérieur daañu jàpp bés boo xam ni daañu dem ministre ministre ministère de l'intérieur laaj fichier bi li ñu fas yéene def d'ailleurs ci wàllu fichier bi ak ci wàllu élection jàpp nañ ko léegi ci réunion bi ñu génn. moo di xeex bi dañ koy continuer di ko wéyal jàpp nañ ni ci weer wii ñu ji nekk daañu organiser manifestation bu rëy rëy boo xam ni pour fexe élection yi jaar ci yoon marche la ñuy def rek bu rëy rëy ñu dem ba ca Dakar Plateau boo doxantoo ci sous préfecture bi nag table yaa ngi fees de la carte électeur li ko waral ñi ko moom ñoo fa ñëwul jël si ko nees nañ fan yi di wunjee sax ñaar ket ñoo fa ñëw rek ngir jël seen carte électeur ba tax na kilifa yi di sàkku ci ñi nga xam ne jotaguñu seen carte ñu doxantu foofu ko defee rek bésu woote ba dinañ mën a def li nga xamante ne mooy seen tànneef abi fay àndi ci ak Modou kart carte yi ba léegi gisaguñu seeni borom ñu teg leen ci taabalu salle sous préfecture bu Dakar Plateau bi talaata gi. yemook juróom benn fan ci weeru novembre ñaari nit donc ñoom ñoo ñëw jël ci seen carte gu ma ko ñu ne ma ñëwagul naa xaaral ko tuuti ça fait trois mois quatre mois non non plus même jaabante dama ñëw ñu ne ma génnagul ma dellu depuis loolu ñëwuma ñëwaat naa léegi ñu ne ma génnagul. dama ñàkkoon jot nag moo tax bu dee mun moo fexe ba jël si ko mais macha allah tey jaar naa fekk naa ko fi. xam na njëriñ nit ki boo déposé karante da nga war a ñëw nga jël ko mais doo ko bàyyi fii gars yi ngi nekk fii saam ko fii aussi c'est pas joli rafetul quoi. lu weesu fukk ak ñetti junni carte ñoom la ñu dajale fii. heure bu ñu wax yow ni tey actuellement euh, jot nañu 3145 cartes. ci ci ci ci ci voilà ci ci bees donc ci biir loolu joxe nañ ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn heure bu ma wax yow ni actuellement dese nañ ci donc. deux mille neuf cent soixante-quatorze muy ñoor ñaari junni carte ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent donc bu ñu seetee tey globalement carte yi nga xamante ne jot nañ ko muy nekk carte yi nga xamante ne dañoo nekkoon ci euh, révision exceptionnelle bi ak carte yi nga xamante ne dañoo nekkoon ci refonte bi muy treize mille zéro quinze carte ñoo ñu dese. pekkaaral gi ci askan wi tax na itam administration bi ne séddale gi mi ngi dem ndànk-ndànk. actuellement nii quand même euh, carte yi quand même ñu ngi dox donc c'est pour vous dire que ne musul am rupture. ci biir séddale carte yi carte yaa ngi fi commission bi ñu mettre en place mi ngi dox du matin au soir chaque fois pour joxe carte yi. yile couloir jafe na nga gis fi nit gu fi jaabante ngir jël si ay carte électeur am gannaaw ba nga xamante ni itam def nañ li di révision exceptionnelle gi ñeel wàllum liste électorale yi ba léegi carte yi gisaguñu seen borom des nañu yaakaar ne ñoom ñi dañuy xaar ba élection yi gën a jege si. ngir rekk ñu mën a jël ci seen carte yi. abi fay dañuy dem ba ca diwaanu moritani foofee nag ab accident fukki nit ak benn ñàkk ci seen bakkan ñu bari am ci ay gaañu gaañu. loolay xewee rek ci dëkk bi ñuy wax Assorget nekk ca bët saalum réew ma ñu ne nag ab bus moo fa mbëkkante auto particulier ba waral jëye ji suñu correspondant wala correspondant RFM Mahmoud Diop moo ñu baaxee xibaar bi. yegsi ci tàggat yaram wax ci convention bi nga xam ne réewu Sénégal de ko xaatim digganteem ak réewu Chine loole nag aju ci li nga xamante ne rek dinañ defaraat ñeenti stade fii ci Sénégal bokk na ci stade Léopold Sédar Senghor stade Eliminel Fall bu Diourbel stade Lamine Gueye bu Kaolack ak Aline Sitoé Diatta ci Ziguinchor kilifa yi ne liñ ci jublu rek mooy fexe ba infrastructure yooyu may ñu. ñu mën a amal tàggat yaram niñ ko bëggee fii ci Sénégal Mamadou Faye euh, Mamadou Fall teewoon fa ànd ceeg Amadou Ba. Sénégal ak Chine joxante yoxoo ngir amal ay bërëmu tàggatukaay mu nekk nag ab signature convention boo xamante ni ñaari dëkk yi amal nañ ko ngir defaraat ñeenti stade. parce que seetlu nañu ne la république populaire de Chine ci lépp lu ñu sumb ci domaine bi muy tàggat yaram am na yeneen domaine sax waaye tàggat yaram moom fës nañ ci lool di ci jàppale. muy coopération bu ñu saluer e loolu nag ñu ngi ci liggéey bi signé nañ convention bi te fii ñu jëm du yàgg mu commencé. boobu la signature convention ñu ngi ko moon nag ni ki ba fi président chinois bi ñëwee fii ci Sénégal. pendant la visite du président monsieur Xi Jinping le gouverneur chinois. lii ñu ngi ko jàpp bi président bi ñëwee fii président chinois bi ñëwee fii. ci Sénégal lañ woon nag danañ defar ñeenti stade loolee la ñuy amal tey projet bi nag daañu ko démarrer at mi ni ñëw war na fex mu pare ci nu mu gën gaawee. ñeenti stade ngir sport bi jëm kanam ñu gën koo jëmal loolee nag faw mu am ay koppar ñu ciy def lu ci tollu ñeent fukk ci suñuy milliards lañ ciy dugal. ngir kon amal yooyu la infrastructure. li ñuy xam mooy ci ñeent fukki milliards yooyu ñu ci war a def. lu ëpp genn wàll gi yëpp dañ koy def ci Léopold sengoor parce que Léopold sengoor dañ cee nam changé ko bu baax a baax def ko stade boo xamante moom la ñu gis fépp fu ñu nekk ci dëkk yi nga xamante dañu développé loolu nag bu fekk see stade olympique beeg li ñu fi war a def yëpp mun nañoo rafet njor xeex bi ñu président Macky Sall sumbuloo ci ñàkkum pour ñu régler définitivement problème mu ñàkkum infrastructure sportive defe naa ne loolu bu ci dollisee dinañu leer ne loolu moom dinañu ko gagné. li am solo nag mooy gis-gisu président Macky Sall mooy gis-gis bi baax. liggéey yi dana door janvier ci atum 2019 loolee ko xam ne moo di jëwriñ ju ñor wàllu tàggat yaram ndax nee na kon mboolem travaayu technique def nañ ko ba noppi. di wax ci mbiru cosaan ak aada rawatina musique ak li nga xamante ne mooy lambigolo mooy album bu bees bi waa Tourikunda jagleel melomaan yi gannaaw fukki at yoo xamante ne rek génnuñu album ñu ñëwaat ci seen bi rek ak benn albom bu yees boo xam ne am na fukki ci ak benn loolu nag nee na liñ ci jublu mooy fexe ba ñëpp ñi leen di safoo xam ci li ñu nekk ci wàllu musique Aïssatou Paye teewoon fa àndi ci ak Mohamed Sow Diagne réew mi nit ñu mag nit ñu baax nit la laaj man fa soxla doomu réew mi njër ñu béykat yeeg sàmmkat nappakat jaaykat jàngalekat rabakat rëbakat yeeg nguur loolu lay njëriñ dimbali ñëpp

juróom benni goos ñun ñëpp mu téye ñu si loxoom dugg ñu ñuy seetaani làmb làmb boobu gisatuñ ko. ñu laal itam ci problème mu Casamance bi nekk dëkk boo xamante ne foofu la ñu jógee. xeex xeex bu ci Casamance bi mu ñuy ub mu ñuy sonal à un moment donné suñu yëgee ay yenn dëkk gars yi nañu ah yéen waa Casamance ngeen ñu ne waa Casamance lañu woon bu xeex amul. tout tout ça c'est pour tout simplement yee woo leen ne leen attention seen doom yaa ngi beddeeku. seen programme nag ñu tëralee ko ni diggante ndax ak ndakaaru. waaw ah, suñu defee. institut institut saint def euh, fi no def. Mbour Mbour Saly waaw après jóge fa. le 10 def fii donc mun nañu def bu Ziguinchor aussi mais dinañ ci am. firndeel ah. su ci kanamee parce que bu ñu bu ñu demul foofu nañu mer nañu mer mais tamit invité wu ñu mais ñu ngi seet na la ñu koy defee parce que fa la ñu juddoo fa la ñu yaroo suñu folklore bi fa la ko jógee ba àdduna wërëgal si yëpp di ko di ko wéy te dégguñu làkk yi vraiment lu ñu ñaan yàlla rek yoon bi gàtt na mais buñ ci mën a dem balaa ñu ñibbi ah yàlla ñu ngi koy ñaan mu yombalal ñu ko sinon dañuy dellu si fukki atu carrière Touré-Kunda waat ak Lambigolo ci benn tournée sénégalaise. Aïssatou Paye ñu yegg ci xëtu yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ku takk màgget boo taxaniwul ab sedd dana la yóbbu sil xafar enquête nañu responsable yi APR yi ci ndakaaru kenn ci ñoom toogatul kenn ci ñoom amatul jàmm muy Amadou Ba di Seydou Gueye di Aminata Touré Moustapha Cissé Lo Abdoulaye Diouf Sarr ba ci Mame Mbaye Niang ku ci nekk ci ñoom yaa ngi wane sa bopp dëkkee def li nga mën ngir bëgg a contrôler parti APR ci ndakaaru surnal bi nañu mel na ne nag Amadou Ba moo gën a jekk ndax Abdoulaye Diouf Sarr ci perte de vitesse la nekk Aminata Touré daa mel ne ku xewi Mame Mbaye Niang it journal bi nee nañu ku yóbbu di ko sóor ndax wane na boppam kerook samedi ca Ngor ak Sénégal 2035 Moustapha Cissé Lo it wax na yéene ji am ci Ndakaaru ba ñëpp dégg ko loolee doonatul secret ci kenn léegi ko mel ne ku naan ñoom ñëpp nag nar nañoo am mbetteel ndax Macky Sall mii borom APR tànn na Abdoulaye Diouf Sarr def ko mu jiite cadre républicain yi guddi yu ñu toll Abdoulaye Diouf Sarr moo gën a taxaw Amadou Ba ci biir parti APR l'observateur nañu convergence des cadres républicains ga Thierno Alassane Sall jiite woon Macky Sall jox na ko Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Diagne ma jiite woon élève étudiants républicains yi moom ma nga fa mu newoon ba léegi lobs nañu dogal yooyu yëpp démb la ko jël ca ndajem secrétariat exécutif national bu APR jiitu réew mi Macky Sall yéenekaay bi nañu du sàggane dara ngir waajal wotey présidentielle yu ñaar fukki fan ñeent ci weeru février atum ci guerre bu métitérée ca la nekk ca ndajem démb ma it moom Macky borom ñaari abdou yi di Abdoulaye Diouf Sarr ak Abdoulaye wax na fa mbégte contentement gu bokk ci ñi fara ci ku jëg politique gi ma nga ca ba léegi Vox Populi nañu gisee na démb ak njiital grand parti di Alaaji Malick Gakou ñoom ñi fara ci opposition bi li ñu bëgg ba fas ci yéene xutti seen tànku tubay moo di fexe ba wote présidentielle yi 2019 yi xat bañ cee damm lépp tege ci yoon àndandoo ko leeraange gu mat sëkkate wër Alaaji Malick Gakou di xam ne ci xët mu njëkk Vox ne Macky Sall dafa bëgg a jaay nit ñi doole ngir nangu élection réew mi mbay mi direct info nee nañu gonga rek lay dégg ubbil yéenekaay bi SILS FAO PAM FEWSNET ak gouvernement bu Sénégal ñoo àndandoo doon siiwal rapport bu ñu def doon ca xayma nawet bekk ni mu nara mujjee ci réew mi seenub xayma li mu leen jox moo di li nar a génnee ci tool yi ren musu fee am production record mooy am la am ca Petrosen Le Quotidien nee nañu liggéeykat yi ñoo nga koy jooy ak a jébaane Mamadou fay ma jiite kër ga la ñu ne ay fay la fa nekkee benn ca fay liggéeykat yi ne bokk na ci ne dafay recruter ay nit di leen yóbbu ca kër ga ñuy liggéey recrutement yi kenn xamul ci fan la tegee ay mbokkam moom Mamadou Faye ñoo fees dell ca Petrosen ak yaamaneex ak ñoo bokk ci la yore kër gi ña yàgg ca kër ga faalewu leen li frege ñeenti liggéeykat yi ba tax ñu génn di wax journal Le Quotidien nee nañu mooy li travailleurs yu Petrosen yi bëgg a taxawal ab syndicat mu ne leen du ci dal moom Mamadou Faye directeur général bu Petrosen bi wàllu Quotidien jokkoo ak moom di ko laaj xalaatam ci tuuma yi daane leen ni Petrosen a bopp ku ci mel ne Cheikh Tidiane Diop mi ko defoon bu yàggul ca buntu palais de la république ba jaara ca faatu ak ñiy pandar seen bopp ci réew mi réew mi quotidien gis ne xeetu fitna la buy bëgg a jéggi dayoo waree su koo caaxaane Kouthia nee caaxaanul doon président de la république bu Sénégal loolee la bëgg l'observateur nañu Samba Sine ñu gën koo xam ci Kouthia samp na ndëndam nee na ci présidentielle yi yi démb ko siiwal mu ne ñaar fukki groupe Futur Média yi bàyyiwul mu def politique dafay démissionner. Mamadou Mouhamed Ndiaye cant ak ñenn la yéen tamit naka noonu ci kóolute beeg safo bi ñu lay ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.